te ak li mooy ñu jox law sas nga lank bayoo kay bay nga xaaju sasam kuñ wóolu daa war a wóor la biire man rek lay def waaye diglewu ma ngir digle ak tere bàyyi sàll na mbir yi di leer imam bu fekkee ni daa kabar nga jottali nag te jëmajul yow mi doon maa moom jayaa nga ca biir yàllaa ma def man ci baaxam waare doon sama mbir sang ñàkke waaru bu muy tax yow nga naa duma waar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 sëriñ bi nangu ni kii saa dooma wax ko ca kaw nuy dégg seex Mustapha firndeel ko lii di lu leer loolee dalaa soññ tax laa farlu yokku sa gëm te bu la neexoon nga toog tal togge sol saba sa jikko ji ne ci yow mbooloo mi yokku ci tus sa jikko ji ne ci yow mbooloo mi yokku ci tus soppiku woo tarfatal ni yaay libi xeroo ci aw ñam dangaa ñam yàlla wuute nga ak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 kii sakku laaxira ñëw te doo ci jëw kenn doo jànnee kaxas aka luur noppalu woo yow te noppal gaayu noppalu yi bàyyi sal amul sal bu muy féexloo ko invité xaw foog rajaa oog xayaa oog yërmandee di sa mbir ba kenn du merte sa digg ak yàlla leen du ko ruur lii tax baloo ittewoo ku nekk war ca taxaw ngir yow amoo xejja kii seen sax fi yaay sunu muur yow yaa ngi yoon wi